man bàyyi laay du ma ko yor. dinaa woo adduna bi dinaa woo adduna bi yëpp. si jàmm si jàmm. mu ne man limaamu. man limaamu. dammaloo ñu ma. dammaloo ñu ma. gattaxab daaw jeeg. kon nag kon nag. kuy woote fitna kuy woote fitna. bokkoo ci moom bokkoo ci moom. bokkoo sax si suñu. bokkoo sax sunu borom. suñu borom wax na ndax sunu borom wax na ne. taqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaassa moytu leen. moytu leen. fitna boo fitna boo xam ni. bu ngeen ko yeewee bu ngeen ko yeewee. du yem ci yéen du yem ci yéen rek. dina dem fu ne. dina dem fu ne. lor ku ne ne. nit ki nag nit ki balaa balaa. jàmmal nit balaa jàmmal nit ñi. na jàmmal boppam. loolu moo ñu manqué ñu. loolu moo ñu manqué. ñu ngi woo si. ni si jàmm. Eh, waaye ka toog. di woo ñi si. ni si jàmm. jàmmalul boppam jàmmalul boppam. ñàkk jàmmal sa bopp ñàkk jàmmal sa bopp. mooy cër yi. mooy cër yi. yàlla tàggatal yàlla tàggatal la. nga war katee sant. nga kay say mooy. jàmmaloo sa bopp waaye jàmmaloo sa bopp. jàmmal keneen waaye bay jàmmal keneen. mooy ndax mooy googu. fa mu fitna la. fitna bu àddina la fitna bu àddina la. fitna bu àllaaxira fitna bu àllaaxira. fitna bu àddina. weesuwul weesuwul. sama borom ba sama borom ba. teg la teg la. nga yenn ku lim la teg. nga yenn ku lim la teg. ma yóbbu nag dooti ñi ni si jàmm nee na juróomi mbir diine yi yàlla wàcc yëpp boole naka ci boole naka ci muy muy nañu ñoŋal sunuy bakken ñu ñoŋal sunuy bakken ñoŋal sunu diine ñoŋal sunuy xel ñoŋal sunu alal ñoŋal sunu deret am nañu sa dolli it am nañu sa dolli it ñoŋal suñuy der ñoŋal sunuy der lii ku si ne sang bi ne lii ku ci ne dañu la digal dañ la digal muy farata ci yow nga jàmmal leen mooy nga ñoŋal leen doo leen bàyyi mooyal leen ñu topp seytaane topp bakken bu boobaa jàmmaloo sa bopp yow bay wax keneen nanu dem si jàmm nanu jàmmal sunu bopp ba noppi di woo keneen ci jàmm jàmmal sa bopp mooy la mu woote bérék suñu bakken nu béré ak sunu kenn teg fi yàlla teg ba noppi di noora am jàmm ci ñun jàmmal sunu njaboot jàmmal biti bi kon kalaa oo ñu ni si jàmm waaye nee na nga jàmmal sa bopp mooy nga ñoŋal sa bokkeen xeex ak moom bëreeg moom ba mel ni yàlla di ci door a wakkaneen réew mii nag jàmm rek lan fi oote waaye ku fi ooteet jàmmala sa bopp ko door a woote melal ni nga war a mel di ko door a woote. di ko door a woote. ala kulli xaal. ala kulli kuy oote fitna. kuy oote fitna. yàlla jàmmal la. waaye sanga bi ne yàlla jàmmal la. loola du jàmm. nee na loolu du jàmm de. dala bëgg a jàpp. dala bëgg a jàpp. dala bëgg a jàpp. dala moo kii mooy yàlla. mooy yàlla. yàlla di la xéewal. yàlla ñoo yem. ñoo ndax ñaar ñii. ñaar ñaar ñii. bu ñu ñëwee. bu bu leen ubbil. moo di. moo di. mooy yàlla gu dëkk mooy yàlla gu dëgg. ak xéewal gu dëkk. ak xéewal gu dëkk. ñaar ñii bu ñu àndee. nee na ñaar ñii bu ñu àndee. bu leen dalal. bu leen dalal. yaa ngi mooy yàlla. yaa ngi mooy yàlla. waaye yaa ngi am xéewal. waaye yaa ngi am xéewal. ku ka seetlu ci sa bopp. ku ka seetlu sa bopp. xamal ni xamal ni. sa benn tànk sa benn tànk. mi ngi ci biir safara mi ngi ci biir safara. beneen bee ko war a fekk beneen bi moo ko war a fekkee. sama borom tegal na la fiir. tegal na la fiir. ni ñuy fiiree janax. sanastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun wa umlii wa umlii lahum inna kaydii matiin sama borom ba nee na sama borom ba nee na xalsat naa leen a taxañ naa leen a kii oset kii oset noonu muy def noonu muy def loolu mooy istigraaj ndànk ndànk ndànk ndànk rek ba ma jàpp la yaa ngi mooy yàlla. yaa ngi mooy yàlla. sa xéewal mu ngi yokk sa xéewal mi ngi yokk yaa ngi am ak wér. yaa ngi am ak wér. yaa ngi jàmm. yaa ngi am jàmm. yaa am yaa ngi am lépp. luy niru jàmm. kon nag nit ki mu seetee ci boppam ni dafa boole mooy yàlla ak alal wala xéewal rek na tiit te xam ni tegal nañ ko fiir te dinañ ko jàpp nag kon nag laay moom du ma taar képp koo xam ni da nga bëgg jàmm na nga ko liggéey na ko liggéey réew mii nag mii nag képp ku fi woote jàmm ñëpp ànd ak yow. képp kuy lu dul jàmm. ku yëpp kuy woote lu dul jàmm. ñëpp du mooyu. ñëpp dañ la war a du mooyu. li waroon sax. te li waroon sax. mooy ñu xañ la jàmm. ndax ku xañ nit ñi jàmm. ndax xañ nit la war a xañ jàmm. ku xañ nit ñi jàmm. xañ nit ñi jàmm fii ci àddina. yàlla dina la xañ. yàlla dina la xañ ëllëg ca laaxira. wallaahi nee na dina la ko xañ. loolu nañ nañ ko xam. na ne loolu nañ ko xam. lu nit di yootu. lu nit di yootu. naka jaar ci jàmm. jaar ci jàmm. lu nit. lu nit. bëgg tiit. bëgg tiit. naka ci jàmm. li mu bëgg a wax nag. lu la yàlla dénk la yàlla dénk nga bëgg téye nga bëgg kaa téye bu ko ci fitna loo yóotu lu ne bëgg saa jot bu jaar ci fitna pour jot ko suuf si yàllaa ko bind rafetal ko sellal ko saxal fi jàmm ku ko jalgati nag yaakaar naa ni sóoru nga koo xam ni ku ko sóorutal meeru mooy rabbul alamin waaye sanga bi nee lool mooy lu doon waate ñaan. bala noo ñaan. daan ka ciy tofal. ñaan ci réew mi jàmm. waaye ñaan ci réew mi jàmm.